sëñ Mourtalla ñu nuyu la ziare la fekk la fii ci bis bi ànd a xam bis bi naka ngeen koo taxawoo ba nekk fii. Euh, ni nga ko waxee rek tey euh, comme ni ko waxee wàccaay wi euh, a ñu di ko waajal muy journée boo xamante si nii dañ koy bëgg a lancer dëgg-dëgg rek lépp loo xam ne jëm na ci wàllu assainissement ak environnement. waaw ni ni niñ def ci ci ndox mi rek ci ci huit mois yàlla dimbalu ñu ñu jekk ko ba tey ndox mi ma Madiyana 1 ba 6 mi ngi yéeg ba yéeg ci kaw terrasse yi loolu lañ bëgg a def ci environnement environnement nag dafa yaatu ak assainissement waaye dañu bëgg tàmbali nag ci mbalit mi dañoo bëgg a essayer jéem a def Madiyana zéro déchet maanaam dëkk boo xam ne du am mbalit loolu nag ngir ñu def ko il faut ñu woo waa Madiyana yëpp woo autorités yi woo kilifa yi wax leen li ñu bëgg waaye nag ñun ñu jël dara teg ci taabal ji xool naka la ñuy def ngir mën a assurer nag Madiyana zéro déchet boobu. waaw bi nga xamee ni woote nañu bis bi xalaat ni mbas bi ñu ngi koy tàmbalee waxaat ci réew mi dañoo jël suñu matukaay yëpp euh, lu bon bon fexe nañ ba am lu tolloog euh, junniy masque teg ko ci porte bi képp koo xam ne ñëw nga bala ngaa dugg dina jox masque nga por ko soog yóbbu furxaan tam war ku ne ci bépp gox waaw ñu ngi ko sos ci ndigalu sëñ Cheikh Seynabou euh, mars 2020 boobaag léegi li ma la wax léegi huit mois la waaye liggéey bi macha allah ba tey jii ndam yi mi ngi gën di yaatu fu ne ci biir réew mi ñu ngi koy gis ba bitim réew am nañu geneewal ci diaspora bi ñu ñooy woowe Madiana set comme Madiana fii six la waaye ñi ci bit la ñuy woowee Madiana set lool it law na tey ba àgg Cheikh Mahamadou Mountakha ndigal di yaatu na sëñ Mountakha yi ci màggal gi dem nañ fa moo ñu woo sax ñu dem fa leeral ko liggéey bi mu yëkkat téeméeri junni tamit def ko ci liggéey bi loolu di ay taxawaay yoo xamante ni yu am am solo la waaw ah, ku ci bëgg a bokk ànd taxawu Madiyana lañ wax ku dëkk Madiyana rek bokk nga li des mooy nga dëggal ko dëggal gi mooy nga am benn carte membre ñaar téeméer weer wu ne nga dëgg rosi téeméer ku ñëw fii nag. gis nga instant bi yi nga xam ne jot nañ ko defar dinañ ko tasaare ci Madiyana yi ku bëgg a dagg rek di nga mën a dagg weer wu ne téeméer waaye quatre membre bi ñaar téeméer boo xam ne at mu jot dañ koy renouveler moom itam jërëjëf Mame Diarra